السلام عليkum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru màgg yu ñu nekk ñi teew ci barab bu tedd bii di jumaa ji di topp waxtaan wi ak ñi nga xam ne nekkuñu ci biir jumaa ji tey topp waxtaan wi ci jumtukaay yi nga xam ne ci waxtaan wi di jàll ñu di ko teewal ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel day mel ne tey jii nag mooy jataay bi jiitu ci jataay yi nga xam ne dañ koo jagleel laaj ak i tontu mu toll ci ñeenti jataay ñu fas yéene cee ànd ak sëriñ Mbacke Abdou Rahman moom mi nga xam ne mii nes na ko ci jataay bi yàgg naa ànd ak mbooloo mi daayira muqaddamatul xidma ci liggéey bu am solo bi ci defe ay waxtaan ci defe ay jàngale ak ci tontu ay laaj yi nga xam ne bàyyikoo na ci mbokki jullit yi mu indi ci ay leeral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 alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di maa ngi leen di ziyaara di ko tàmbalee ci Sëriñ Cheikh di leen ndokkeel ndokkeel mbokki daayira bi yëpp di siyaare bu baax suñu kilifa yi tedd yi Cheikh Mouhamadou Mountakha di siyaare bu baax di ndokkeel ummatu islam yi fi mën a nekk bu ànd ak jataay bi ñaan yàlla defal ñu ci tawfiq ak taysir euh, jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu am solo bi kon laaj bi ñu njëkkee kii de laaj mu ne laaye ji suñu borom wax ne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 bokk na ci li ñu nett li jële ko ci ibnu abbas mu ne quraysh lañ wër kaaba gi di def yaramu ne di wax ci kaw ak di tàccu nee na ci ñoom yàlla wàcce qul man xarama zinata allahi allati axraja li abadi aaya ji jeex nee na ci lañ leen digalee ne nañuy soli yére bu ñuy wërati kaaba gi aaya boobu li ko jiitu day wane suñu borom ñax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 yarhamullahu almustaqdimina minkum wal mustaakhirina minna waxin woowu day wane ne kon ñi ñuy waxal ñu ngi dégg ndax xitaab la loolu borom xam lañ ci dégg ne kon ñoom dara ñuy dégg donte nag duñ wax ne waxtu wala ñu ngi dégg waaye léeg-léeg nii àdduna nit mën naa yori nopp di dégg waaye am lu déggul ñoom itam noonu waaye danañ dégg te sax na it ne xadis bi wax ne amul kenn ci yéen koo xam ne dana romb ci bàmmeelu mbokkam mu nekk ab jullit nuyu ko lu dul ne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 ci fu bokkut ak station yi nga xam ne moom lañ jagleel pour loolu te ñu xam ne sax loi bi tënk réew mi day tere ñuy jaay essance fu bokkut ak station yi. waaw bu fekkee nag ne luwaa yi ne ci réew mi di tënk doxalin wi daa tere jaay essence ngir maslahatu naas nga xam ne jaay gi ci ay barab yi bokkut ak yi ñu ko baaxoo jaayee lor mën na caa juddoo boo xam ne bu dikkee day lor nit ñi sañ nañ ko booba.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 kon da laaru di ñuy def nii nañ jaar ni ñi jaar ni ngir bëgg ñëpp am jàmm kenn du loru ñëw ci alxuraan ñëw fee waaye nag dañ ko war a ndax maslahatu naas moo tax ñu yu mel noonu wormaal ko day nekk warteef ci ab jullit ndax wormaal ko ci la njariñ ñëpp nekk lor mënu ci nekk te dañuy tere jullit loru ba mu lore laa darra wala yu mel lu ci wut ak te maslaha ci day ci ñëpp day laaj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 kon jaamu yàlla gu baax la goo xam ne fonk nañ ko lool di ci soññee rawatina ci weeru ramadaan wi ñu nekk rawatina fukki fan yu mujjee ñu baax ñëpp dañ ko daan liatikaaf yu doy salaam ba ni mu génnee àdduna da fukki fan yi mujj ci ramadaan Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim miit noonu la meloon da ko daan liatikaaf fukki fan yi mujj ci ramadaan taxoog ji di jaamu yàlla loolu moom yàlla gu solo la xalwa nag moom noonu la tudd xalwa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 bu dee dund dama yit kooku ne ko maa ko jëloon jéggulu ko bu faatoo jox ko ay ndonoon wax ñoo ko moom boo gisul kennam saraxel ko bu dee da doon yàq ab daram nag di wax ci moom wax ju ñaaw daan ko jëw daan ko wax lu bon yàlla xiir na ci tuub demal ba ci moom nga jéggulu ko bu fa nekkee bu fa nekkul nag loolu du àq di ñu doon bu fa nekkul moom faatu na yóbbaale sa àq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 ñu ne gaa yi mu tooñoon kii kat amut lu mu leen fayee li fi des mooy kaay leen wàññi seen i ñaawteef jël wàññi seen i bàkkaar ñu wàññi seen i bàkkaar ñoom sëf nga xam dafa dem yóbbaale yiw bari waaye fa mu mujj mooy feesal ki bàkkaar ñu yóbbu ko sawara wala yasubillah loolu li koy waral mooy tooñ sa morom jàmm fi ci àdduna moo tax noonu nag ku ci ameel sa morom ak tooñ na nga ko lijjanti balaa kon tooñante moom lu mat a moytu la moom la sëñ bi jàngale ca وهكذا رد المظالم جميع يعد من شروط عند المطيع لأنه فرض فمن تركه مخففا فقد عصى ملكه كون توان دي الله دي بالي موي لين كو توي موم يالا واي دي دوخ سا ديغنت اك سمورم جام دا تي مانو تايت يوم القيامه صاح نك يي دوخ سي ديغنت جام يالا بوكو نك لي مي نيك لي جينتي موي دراري بوما سي لور ني سي دراتام كو فن خاغن كو ولا نغ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 doonte da ko wan te tey mhm. eh, ko kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy jaay sàngara sàngara suñ ma suñ borom daf ko haramal ci jullit ñi araamal naan gi araamal it jaay gi waaye jooju yoroon mbuusu sàngaraam ñëw yut ay xamal ko da ko am mbokk muy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 ab yax saxar na ne dafa arab kenn du ko jaay kon wari su ko jaay jaay ko dafa arab ak lu mën a doon euh, yonentu ay sa waxoon nan inna laa xarama bayan al xamri wal maytati wal xinsiir kon ab yax root na ba noppi sobe la même bu yax bi rotutoon te nekk sobe sobe jaay ko dëgënu kon jaay sàngara ci genn anam bul wax ne ñi ma koy jaay ay yéefar lañ wala duñ ay jullit jaay sàngara moo dëgënu boo ko jaayee ba mu am njëg ga nga yor lekk ko dëgënu ci yow ndax yonent bi nee na ki araamal naan gi moo araamal njëg gi bi ci des it ñu bàyyi xel ne fukki nit mbaa lu ko ëpp yàlla rëbb na leen ci sàngara yonent ay salaam moo wax ne yàlla rëbb na sàngara ci boppam rëbb na ki koy képp ku koy naan rëbb na képp ku koy jox nit mu di ko naan di ko màndal nit yow man naam naanoo ko waaye yaa koy servi da ne ci fu ñuy jaay yooyu sa liggéey mooy ku bëgg a naan yaay dem indil ko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 suba dagg na idda ja ne bu toogoon këram ndax lu bari du bàyyi xel mooy kii iddawu bu toogee këram ne ci yàlla kuñ ko waxut mën naa bañ a xam ne ngi daw kii muuru it ci sariya buñ buñ jafandikoo sariya kese jigéen ji muur toog këram yow mi xamut ne borom këram faatu woon man ko xam boo dikkee ndax amu sot ñu nag ñoo ci dugal suñu aada ba nga xam ne foo fekk kuy iddaw wala kuy tëñ da nga loolu suñu aada la waaye jëmmi ni ko lislaam bëggee jullit bi bi mu tëñ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 waaw jëmmi jàng alxuraan de tërëwuñ ko jigéen du gis baax maanaam laal ab kaamil lañ ko tere jigéen du gis baax tërëwuñ ko jàng alxuraan sëriñ bi noon na wa jawazu qiraata alquraani li xaaidin maxaafatan nisyaani kon ki gis toll ci gis baax wala meret mën nay tari alxuraanu karim mën na koy jàng tiim ko ay du ko laal léegi nag laal ab kaamil lañ koy tare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 di ko xool nag moom bu mu ubbi application di jàngal kaamil mel ne yor na loolu moom moytu ko mooy li mooy li gën euh, kiñ may surtout bopp di laal kaamil mooy jigéen du jàng alxuraan di dong maa muy jàngale ñoom moom laal kaamil te te sañ nañ ko tu yàpp xaayit ak nufasa bu nee mu wala mutaallim may nañu may na leen laal alxuraan te yàpp waaye ku dul ñooñu nag bañ ko def moo gën kon jàppal ne application bi na ci téléphone bi di alxuraan boo ko ubbee jàppal ne alxuraan nga bala nga ko ubbi dama la ko jàpp boo ko xasee bu ko dugal ci wanag boo ko xasee tëj nag tëj nga ko alxuraan nekkatu fa loolu mooy gën dal sama xel ci ci rot yëpp man hmm. eh, kii day laaj mu ne mu ne or lu toll nan la ci nit di am ci jamono ji ñu toll asaka door cee war waaw xam nga or mom ak xaalis mësta soppi waxeen bi moo soppi bu njëkkoon dañuy wax ne la ñaar fukki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 ñu koy wax dañuy wax ne ci la ñiy joxe asaka gën a bari asaka dëgg la farata la buñ bari wutit yàpp naa nak jëkk ci àdduna ak moom joxe kat asaka yi nak jëkk ñoo daan gën a néew waaye nag buntub sadaqa buntub albir moom du muk, mukk ki yor fukki dërëm sax santañ ko bu ci mënee joxe dara mu joxe ko ngir yàlla kon waxtu bi mën ngay joxe donte asaka waru la waaye asaka ñi war dëgg dëgg mooy ñi wawmal ñi te wawmal nag koom la koom la tudd mooy alal ju bari waaye dal juróom-ñett fukk gram ak juróom mooy nisaab incha allah eh, kii day laaj ne ji sunu borom di wax la bëgg ñu leeral ko ko mu ne yàlla dafa wax ne wallaati taxaafuuna nushuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fi lmadaja waaw aaya jooju de li borom bi wax subhana taala mi ngi jëm ci mbir yi borom kër yi ànd ak seeni soxna léeg-léeg ñu ci kër yi ak ñu bang bangi di génne tànk bukki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 loolu it jàpp naa mën na bàyyi xel fii nag nyari mulai moom biñ mujje ñaari bing lay njëkki buñ meree moom biñ biñ war a mujje lay njëkki loolu nag du saafara lu bari waaw kay euh, kii day laaj mu ne koo xam dañ ko wuutal ci julli imam bi dafa am ngant wuutal ko ndax mom day sujjóot sujjóotu juum bu fekkee imam bi mo defoon lu war sujjóotu juum waaw xam nga ku ñu wuutal mooy nit ko wax ilimaan di jiite ba mu mu am ngant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 ndax day àggale ak juleem maanaam moom daa taxaw taxawaayu iliman nga xam sax day imam pour àggale julli gi hmm. mbokk mi day laaj ndax dagan na ci ab jullit muy attewoo luwaay yi nga xam ne moom la ci réew yi waaw bu ci safa wut ak sharia duñ ko tare na li bañ nit ki lu wut ak sharia parce que léeg nga dem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 dañ lay atte ci lu safaan ak yàlla santaane te borom bi noonu na wa man lam yaxkum ma anzalallaahu fa la yakum kafirun fa la yakum ghalimun fa la yakum fasiqun al kufru wal fisq wa dhulm melokaani ñi atte wo atte safaan ak atte yàlla kon du ne sa buñ atté ci tribunal bo xam du l'islam rek atte bon la may sa buñ fa atté atte bu safaan ak bu l'islam aha ki day lañ mu ne ko xamne dafa sëngiwu ba noppi njaaloo waaye jotuñ ko atteb atteb sharia mu ne ndax kon su baayam faatoo moom day doon baayam wala waru ko doon ndax day mel dafa jàpp ni kon waroon nañ ko rey daal moo waroon njëkk faatu baayam waaye yàlla dogal na njëkkatu faatu baayam <laughs> maanaa ku sëngewu mooy njaaloo dañ ko war rey sëngewu mooy masa denc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 fii moom day laaj mu ne bu fekkee ne jigéen dafa joteeg boroom këram dem seen kër mhm. lànk ne du dellusiwaat mhm. ndax am na ab diir boo xam ne dañ naan diir bi bu ko toogee te ñëwut dañ koy jàpp dañ ko fase lu mu fa yàgg-yàgg te boroom këram néew ko fase naa la demul tribunal ba tribunal woo boroom kër ba atte ne fase na ko hmm. ci buum la nekk maanaam pay mu yàgg du soppali ku nekk am pase la ba ko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 bu ñu ko xasee tere nag du daganati kenn di ko jëfandikoo ndax dañuy sàmm maslahatul amma njariñul mbooloo mi daa bokk ci li war a sàmm kenn nit du jariñ boppam ci waxtu woo xam ne ma ngay lor mbooloo boo tax yu mel noonu bu fekkoon nag day loo xam ne dañoo bëgg a ñeent rek am ñu bëgg a favoriser ne leen yéen dee leen jaay ñi ci des ñu xañ leen ko suba moom ku fexe ba ba génn ca du wàññi dara ndax ak tooñ la nga fexe ba mucc waaye bu leeree ne lii nii baaxut ci réew mi ñëpp dañ ko a bàyyi. kon ku def def nga bàkkaar ndax def nga lu ñu ndax da ngaa lor sa mbokk sa mbokk yi nga dëkk sa mbokk sa mbokki nit moo tax xel mu tam faaw ñu mu dugg fi ngir maslahatu nit ñi ak li ñuy ngir dugg fi ngir dimbale ñan ñaar yooyu dañ koy xam ne euh, kii day laaj nee lu bari ci ñi nga dañ leen di dañuy bagage ci kër gi duñ sax seen borom kër dara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 bàyyi mu am sañ-sañu tudd doom tudde ko ku mu bëgg tudde taamu nañ ca nag ki koy jox aw tur doon ku baax saxaaba yi daan nañ jël seeni doom di ko yit yontu ay salaam mu di ko daqantal di ko tudd Abu Moussa nee na amoon na doom euh, yit ko yontu ay salaam doom ju góor mu tudd ku tudde ko mu Ibrahim toqantal ko tàndarma maanaam yéyi tànn ba mu mokk mu yàbbi ko leel ko xale bi ci gémmiñam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 ndax sëñ naa jël ci bitig bi lu mën a faje soxlaam te nee na bàyyam mi koy liggéeyloo sax du ko fay dara loolu loolu nag moom di nit mu sama bàyyi dama la koy may ndax ni mu waxee day mel ne ñaxtu la benn dama lay dama lay waxtu yi mu féex damay ñëw di la jaayal ngir yàlla di la ko may loolu xamis na ko sa bàyyi wala mu jël ab di la di la fay bu la dalam war a wax ñaata lay fay maanaam fii bokk na ci aada yi nit ñi def kaay liggéey bu rek mosal dara day ajir daa bokk ci ay chartam ñu xam ñaata lañ koy fay ak kañ lañ koy fay loolu ngir mu kon kuy liggéeyloo nit na ko wax ne ko dama lay fay weer nangam wala fukki fan jone nangam wala bis bi ne nangam bu ko jaralee ñu wala nga ñu ne ko ah, kat dama am waxtu dama koy noppalu te sama waajur ma ñëw dala jàppale ci liggéey bi bu mu ci mën a doon ci ñaar yooyu jël ci alal ji lu waajur wu yëgul dëggan ndax nekk di fi liggéey du lay bu fekkee da ngaa wan ne dalay dalay liggéeyloo te fayu la xëy na ameel na àq àq jooju nag ak ak tooñ la bu fekkee ni mu ko waxee noonu demee waaye ak tooñ ak tooñ du ko fay waa daa war a wax moom ne ko kon bàyyi dinaa ginnaaw dama lay liggéeyal dee ma jox nàngam wala dee ma faje samay soxla kon lu soxla na laaj ba way juróom woowu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 kon bépp tukki bu sori boo xam ne day tax mu fanaan la du ko sañati jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax dagat na ci jullit bu góor muy takk montre boo xam ne nii dañ koo defere or wala xaalis wala jamaa wala yu mel noonu waaw lu mel ne or de moom li ci lislaam santaane woon moom yëpp islaam daa waxoon ne da koo araamal ci góoru xeet wi jigéen ñi sañ nañ koo jëfandikoo ci ay takkaay waaye dafa araam ci góor ñi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 prem la ñu suy ci kaw or loolu am na ci borom xooxa ñu wax ne lu mel noonu bu doon ay bagage yi jëfandikoo dagan na tey mel comme loolu ci la bokk ndax montar bi moom way takkaay kese waaye lu ñuy jëfandikoo la di ci faj yeneen aaju loolu am nañu ko daganal bu fekkee dañ ko suy ci kaw waaye bu fekkee jëmmi madda bi ci boppam or la moom day aram ci ab jullit du ko jëfandikoo du suñu ko moom sax la ñuy wax suñu ko moom maanaam jullit bu góor suñ ci moom takkaay or ni mu nekk ay takkaay loolu loolu mën naa bàyyi xel baax a baax. Euh, mbokk mi day laaj mu ne lan mooy àttab jigéen joo xam ne dafa am ay doom waaye ne dafa bëgg a sëy beneen góor boo xam ne bëggul mu xam ne mag la nee na muy nëbbu doomi mag yi nangu ko xam ne am na ay doom doomi mag ngir bañ mu xam ne moom mag la. loolu ñaari lor a ngi jenn ji mooy lëntal la ab jullit du lëntal bi ci des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 nga noppalu noppal ñi nga àndal mm-hmm. eh, jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax koo xam ne nii toppul imaam ci yokk gum yokk ndax moom dina jar muy sujjóot baada salaam waaw ku ànd ak ilimaan bu ilimaan dee sujjóot faw da sujjóot donte sax fekki woo fekki woo njuumte la masal ilimaan mën naa juum ci rakkaab bu njëkk yow fekki woo nga ñëw ci ñaareel ilimaan daf luy tax xabla salaam war ko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 waaye itu yi nga xam ne dañ daan jàng diine jàng alxuraan di ko mokkal mën dañ ci barab jang nañ feq jàng lépp waaye yéefar lañ dañoo sàggat rek mën nañu ñëw ci barab di làqutu jiite la julli dafa la julli def lépp saa boo yëgee ne ke la jiite won bi sangam yéefar la woon julli googu baa ko war na ba na doon góor na doon gu xam jigen du jiite ci masa malik du jiite góor du jiite jigéen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 danañ ko dañ koy sartu ci ilimaani ratib kuy sax ku jiite nit ñi waaye bu fekkoon ne nag da ngeen a daje woon nii rek ci benn jotaay julli jot moom bari na ci yoo xam ne mën nañ ko ñu moom ku man ponk yi rek bu la jiitee ba xam hmm. kii day laaj mu ne lan mooy atte koo xam ne dafa taxawal jullik suba mu fàttaliku ne moom julliwul ñaar ay fajar waaw bu fekkee daa ne ci jàkka ji de ñu xas taxawal jullik suba te julli fajar da koy bàyyi Anda iliman ilimaan julli ñaar rakka suba bàyyi bam naaj bu jant fenkee ba mat fanweeri minute wala lu ko jege mu fay ñaar fajar bu fekkoon nag daa ne ci jàkka ji bitti jàkka ji di ñëw dégg ñuy taxawal julli te xam na ni ilimaan ji day jàng saar yu gudd mën taxaw ci biti naafi ñaar fajar ñëw ci jàkka ji te rakka bu njëkk du ko raw kon sañ naa taxaw ci biti julli ñaar fajar doo dugg ci jàkka ji bu ko leeree bala koo daf ilimaan raw ko raka bu njëkk nag sañatu ko day ñëw dugg ci julli gi bu naajee mu fay loolu lañ ko sant mm-hmm. kii moom day laaj mu ne koo xam day jàng ndax bu ba weer wi dee wala boog weer woo xam ne daal jàng ko ndax ki koy jàngal am na sañ-sañu laaj ko ne ko da ko war fay faaw ñu xam li tax jàngu bu daf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 kii day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne dafa julli ci barab bu am sobe te xamu ko lu may ginnaaw bu mu jullee ba noppi waaw li ñuy wax tahaaratul xabas mooy sa yére ak sa yaram ak barab bi nga jullee taq sobe charte la ci wérug julli waaye maa zikri wal qudrati bu fekkee ne yow fàtte woo ko te mën nga koo dindi war na la nga dindi ko boo ko defu julli ga du baax waaye dafa mel ne moom da ko fàtte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 dang nga ko ko delloo yàlla bu ëllëgee te moom la ko jox lu set wi ci la woon fitratallahi la ñëwale woon kon fexeel ba yow fitra boobee nga suuxat bu màgg ba buy delloo ci boromam doon ko jag nga am ndam am tuyaaba moom it mu am ndam am tuyaaba bu dul loolu lu sikk ci moom te fekk yaa ko waroon taxaw taxawoo ko bu ëllëgee sa borom dan la ko laaj kii day laaj mu yenn doom dañuy ñëw seen kër waajur tabax fa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 te amul amul amul maanaam xamuñ ku baayam waaye góor moom bu njaaloo ba doom judd it liñ mën a saxal mooy njaaloon waaye lislaam saxalut ni doom ji góor gee baayam doom jooju dañuy wax ne amul baay ci sariya képp ku ne mooy baayam mooy saxal nga ne njaalo lay tekki kon njaalo njaalo rek la nag bu ci doom sosoo day ñaaw teef wu andi ànd xam ñaaw teef ci doy na bu dee ba ñaaw teef nag ànd ak moom day tax mu gën a ñaaw waaye njaalo njaalo rek la moom saa bu nit ki jaxasoo koo xam ne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 am mbalit la booy seet loolu ñaar yooyu mat naa xàmmee desu mak dañ koy bala nga koo jariñoo laaj ñaan ko borom bu dee yi nga xam ne kiiwul sañ na yu bari defar ci mbubb subaa moo ko moom euh, mbokk mi day laaj mu ne koo koor dafa teru nee ñett fan yu njëkk yi wóoru ko te amul benn ngànt moom dafa wóoru rek mu ne ndax kooku wala waaw xam nga ramadan bu képp koo xam ne woor war na la te amoo benn ngànt amoo benn lay bu dëgërit amoo benn lay bu dëgërit soo wóorut bis booba am nga bàkkaar bu rëy fay bis ba war na la ba noppi nga kafaara boole ci da nga fay bis bi ba noppi kafaara bis bi ngay fay mooy bis bu fekkee ñetti fan la kon dana fay ñetti fan bis bu ci nekk dana ko kafaaraal ñetti kafaara ñetti xeet la juróom benn fukki miskiin ku ne mu jox la mudd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 ci leeral yu am solo yi mu indi ci laaj yi nga xam ne ñëw na fi kon bala ñu yëkkati jataay bi daayira muqaddamatul xidma mu ngi yëgal mbooleem imaam yi nekk ci Touba ak lu ko wër ak ñi nga xam sax dañuy def ay bayaan ci jumaa yi ne suba ak noddukat yi ne suba incha allah bu ñu julli tisbaar ba noppi fii ci jumaa ji dina am ak tàggat gu ñuy defal imaam yooyu ak noddukat yi ak ñiy waxtaan ci jumaa yi laata ñu julli juma kon suba buñ julee tisbaar ba noppi lañ ko def fii jumaa ji daayira bi di sàkku ci mbooleem ñi loolu yitteel lépp ñu teew ndax njariñul kese la ni ki noonu ba tey it képp koo xam ne am na laaj bu mu bëgg a jàllale bu jëm ci fatawaa yi mën na mën na ko yónnee ci numéro yi 77 703 63 54 wala 77 072 94 76 wala 77 765 58 73 yooyu ku ci yónni say laaj dina agsi jataay bi bu ko defee borom xam-xam bi ñu fi dalal danañ ko mën a tontu kon ñi ngi santaat ñëpp waaw suba incha allahu kon ñu fàttali ne ñu ngi war a waxtaane carte mooy lan ak yan lor la am ak yenn ci xeet yi nga xam ne yu beesal ñu di ko def te mu dugg ci carte sëriñ Cheikhouna Abdoul Wadoud moom moo koy def kon ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu teewoon ci jumaa ji ak ñi doon topp waxtaan wi ci bitti ci GMT bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jog ko ak télé grande mosquée bu Touba bi ci yeneen tele yi ak yeneen site yëpp ñi ngi leen sant di leen gërëm ñëpp di sant mboolem ñëpp daal bàyyiwuñ kenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.